tey boo demee dans les territoires kayit yi nga xamante ni programme yi nga xamante ni président tëgg na ko mu mel ni PSE mu mel ni acte 3 mu mel ni Sénégal numérique 2025 foofu yëpp boo ko xoolee ci biir dañuy wax ne dañu bëgg Sénégal fii ak 2035 wala fii ak 2025 mu nekk réew moo xamante ni gox-goxaat yi dañuy am yokkute mu mel ni kon yokkute Sénégal ñi ko war a yenu mooy gox-goxaat yi ñi ko war a yenu mooy communauté yi dëkk ci biir gox-goxaat yi mais communauté pour ñu mën ko yenu il faut ñu jox leen téeñ li wolof di wax mooy nga jàppale leen doter leen renforcer seen capacité former leen jàngal leen mais nag occasion dafa am parce que tout événement est un événement tubaab yee ko wax président de la république dafa signé yàggul dara benn décret bu tudd intercommunalité ñu ne waaw intercommunalité mooy lan intercommunalité mooy ngeen joxante loxo yow mairie sangam mairie sangam bu dee da nga néew doole ma néew doole keneen néew doole mais neen joxante loxo pour liggéey ci benn projet boo jëlee par exemple sur la question des déchets mais déchets mairie bu nekk am na ko mais mën nañ ci bâtir benn projet boo xamante ni intercommunalité bu gestion des déchets la mën neen bâtir benn projet intercommunalité pour pour gérer ndox mi parce que boo demee ci dëkk àll yi ay forage la ñuy am léeg forage ba lee paan toog ay fan du ñu am ndox forage ba lee mu ngi dox pour ces forages là bu ñu amee benn projet intercom mënuñu interconnecter les forages alors ñun dañ ñun ne dañuy xalaat waaw mais numérique bi est-ce que mënuñ ci bâtir intercommunalité mu tudd intercommunalité numérique alors numérique bi ban njeexital lay am ci jafe-jafe yi ñu am ci njàng mi parce que njàng mi am nañ ci ay jafe-jafe da ngay nekk maire école ya nga am sa biir commune xamoo ñaata école la sax xamoo ñaata élève la xamoo ñaata élève ñooy bindu ren ñan ñooy bàyyi taux d'abandon bi le maintien des filles à xale yi la moo tax ñuy bàyyi te jigéen ñi war nañ toog école war nañ yàgg école alors ñu ne waaw mais numérique nan la ñu mën a dimbale pour la création d'emploi numérique nan la mën a nan la ma mën a dimbale man mi nga xamante ni dama dëkk ngaay mexe di defar dàll ak sac ak ceinture bëgg ko jaay ma ne numérique mën na ma permettre ma am benn cantine virtuelle bu ma defaree samay dàll ak samay ceinture ak samay sac mais su ko exposé ko foofu ñu ne benn commune benn site web boo ko exposé foofu ka nekk Paris nekk Washington nekk Turquie mën nañ ne ah Sénégal ka nekk dañ fay defar lu mel nii donc ñun dañ bëgg numérique dugg ci biir gox-goxaat yi pour mu dugg fa nag du duñ ñoon ne dañuy jóg rek jël ay matériel di joxe parce que jël matériel di joxe loolu état maanaam war na ëpp loolu ab commerçant bu baax ab jaamu yàlla bu baax mën na jóg jënd ay ordinateur dem maye ko fenn ñu ne ñun état ñun ñoo ëpp loolu war nañ jóg dem jàngal nit ñi former leen Sénégal tey boo ko jëlee xale yi nga xamante ni ñi ngi am ñaar fukki at ñaar fukki at ak juróom cinq mo booy booy évaluer chiffres yi cinquante pour cent cinquante pour cent xale yëpp ñi ngi am vingt cinq ans mais ñooñu dañ leen di bàyyi numérique mu yar leen déedéet état daf ci war a dugal loxoom parce que numérique mooy centre d'intérêt xale yi comme que mooy centre d'intérêt xale yi ñun dañ dem positionné foofu seet li nga xamante ni mën nañ ko jël dugal ko seen mbir xel donc ci gàttal daal atelier bi lël bii tey lël la boo xamante ni dafay permettre ñi ko bokk ñëpp muy privé bi muy acteurs territoriaux yi muy gouvernement muy bailleur de fonds ñu ne numérique nan lañ mën def ba mu mën a am jeexital ci biir gox-goxaat yi mais nag loolu pour mu am mairie yi dañoo new doole seen budget mayu leen ñu def yenn investissement yi mais comme que mayu leen ngeen defar yenn investissement mais joxante leen loxo mooy intercommunalité numérique mënuñ tabax yoon pour dini enclavement mais mën leen tabax ay route virtuelle yooyu boo amee boo amee ab ordinateur kii am ordinateur ñoom ay application mais mën nañ dem ak dikk mën nga toog fii nga toog jaay sa marchandise te jógoo fi nga nekk mën nga toog fi nga toog arroser sa tool bi te doo jóg dem mën nga toog fi nga toog di surveiller sa sa tool wala di surveiller sa boutique wala di surveiller bépp place boo xamante ni yaa ngi fa def investissement donc ci loolu daal lañ bëgg tey xuus te macha allah waxtaan wi baax na xam baa ngi génn xalaat baa ngi génn universitaires yi ñu ngi fi praticiens yi ñu ngi fi donc loolu yëpp dañu bëgg bu jeexee rek ñu am ñu tënk benn plan d'action wéer ko ci benn comité boo xamante mooy comité scientifique ak benn comité de suivi parce que dajale waxtaan génnee xalaat bu rafet baax na trop mais nag na am jeexital ci ci terrain bi. rendez-vous d'ici trois mois d'ici quatre mois ñu jël forum bu mel ni dem def ko ci beneen gox parce que nag daan la wax dañ ko bëgg a institutionnaliser chaque trois mois chaque quatre mois bëgg nañ dem ci benn gox def ko fa. ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp presse bi aussi ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di gërëm parce que li ñuy def nii yéen yéen koy yéen koy jàllale je vous remercie. yokk ngeen ma xiif nag.